أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ok salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di leen ziyaara di leen baalu aq di leen bal aq tey bunt bi ñuy waxtaane mooy almunajatu wa ardul xaajaati muy fukkeelu bunt bi ci burdu bi mooy almunajat maa rabbihi muy deeyante ak boroomam ak di gaaral nag ay aajom wala bokk yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam imaamul busayri nee na yaa akramal xalqi maali man aluuzu bihi siwaaka inda xululil xaadisil amimi mu ni yaa akramal xalqi yow gën jaa tedd ci mbindeef yi am na yeneen nusxa yi def yaa akrama rusli waaye ala kulli xaal yépp ñooy bokk rek maana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan ci nam mu ni maali déddi ma ñeel man koo xamante ni aluuzu dina ma wéeru bihi ci moom siwaaka kudul yow inda xuluuli xaadisi amimi inda xuluuli xaad inda xuluuli xaadisi fas wàccuk xew-xew ya alla amimi yee di aji matale mooy rek yowmal xiyaam yowmal xiyaam bu xew-xew yépp wàccee mu ni awma benn wéeruwaay budul sallallahu alayhi wa sallam am na nag ay nusxa yoo xam ne bayit bi dañ ciy teg yeneen bayit dogoo agsi ci walan yadiqa rasulallahi jaahuka bi idal karimu taxalla bismi muntaqimi loolu wuuteeg nu sax yi la wala ñi nga xamante ne dañoo dolli yenn bayit ci biir téere bi mu ne walan yadiqa du xat rasulallahi yow ndawul bur yàlla li jaaxuka sa daraja bii ci man idal karimu ndem aji tedd ji muy allah taxallaa dafa takkoo wala dafa sol bismi muntaqimin ci turu taxalla dafa làmboo bismi muntaqimin ci turu al muntaqim ndax yàlla turam yi al muntaqim da cee bokk muy aji mbugal ji mu ni bis bu yàlla solee mbubb moomu bu boobaa daal man sa daraja rek laa yaakaar te sa daraja lu la ñi la yaakaar lu ñu bari bari sa daraja du xat ba man duma ci xaj mu ni kon dinaa xaj ci sa ci sa daraja jooju mu ni fa inna min juudika addunya wa darrataha wa min culumika cilmu llawxi walqalami fa inna min juudika bokk na ci sa tab addunya àdduna wa darrataha ak wujjam wujj àdduna mooy yowmal xiyam wala alaxira mu ni ko nag bokk na ci sa tab addunya wa darrataha maanaam soxlay àdduna yépp yaa koy faj mooy di gindi nit ñi bu dee darraam nag muy wujju àdduna muy alaxira mooy sa shafaa lañ fa soxla sam tinu mu ni ko min ulumika bokk na ci say xam-xam ilmu lawxi xam-xamu àlluwa ba wal qalami ak xam-xamu xalima ga allawxu mën na am mu namm ci lawxul mahfuuz waaye daal li mu bëgg a wax mooy bokk na ci say xam-xam xam-xam yoo xamante ni yàlla won na la ko muy ilmu lawxi yoo xamante ni xalima moo ko bindoon ci ndigalu suñu borom ndax yàlla dañ ne li mu njëkk a bind awalu ma xalaqa allahu alqalam yàlla bi mu bindee xalima pare daf ni ko uktub xalima ni ko ma aktub lan lay bind mu ni ko uktub maqadira kulli shay'in xatta taquma saa mu ni ko bindal lii xew lépp ba ila yawmil qiyaama xanaa kon loolu lawxul lépp a nga ca lawxul maxfuuf xalima bind lépp taqaadir yi li yàlla war a dogal ci àdduna bi yépp ba àddunay tukki kon ilmu lawx suñu boroom su ko xamalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën na ko xam ñi jam imaamul Busayri ci bayit bi lañ koy jamee ndax dañuy wax ni dafa jël palaasu yàlla jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kon day fekk moom xam na xayb te ilmu lawx am na juróom yi suñu boroom wax ca aaya ba yoo xam ne daf cay bokk inna allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu l-gays wa ya'lamu ma fi l-arham wa ma tadri nafsun maada taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut ñu ni kon yi ay ay xaybiyaat la yoo xamante ni mi ngi ci ilmu lawx wal qalami te bu fekkente ni da koo wax ne yonent bi xam na ilmu lawx wal qalam kon yonent bi xam na yi nga xamante ni suñu borom nee na kenn xamu ko ku dul yàlla ndax xayb la ala kulli xaal yooyu sax am na ñoo xamante ni yàlla mi ngi leen koy xamal fii ci kaw àdduna ilmu saa moom kañ la àddunay tukki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ko waxee dañ ko laaj dañ laa yujalliha li waqtiha illa hu wa yasalunaka ani saati ayyaana mursaha loolu suñu bo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci teel a débracé wu jibril alayhi salaam ba mu ne ko ni ko axbir ni mata saa dañu ko mal masula anha bi alama min asaaili kiy laaj ak ki ñuy laaj kan moo ci gën a xam loolu mu ne ko xaw ma ko waaye dinaa la wax ay amaaraat ay màndarga yoo xamante ni bu ko commencé gis saa moom mu ngi jege si kon boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu na ci wa yunazzilul gays ak moom mooy wàcce taw gaa yàlla mooy wàcce taw moo xam dat ba mu koy wàcce waaye am na ñoo xamante ni xam nañ ci technologie léegi wala xam-xam yi ñuy jàng ba xam taw bi la koy composé ak lu koy wàcce bu tàngoor wi yéegee tas niir yi taw daal di wàcc bu tolloo ci benn daraja ji loolu kon météo day toog ni la suba day taw ginnaaw suba day naaj day ngelaw kon loolu xayb li naan xayb kumpa nis bii la bu dee maa fil arxaam wa yaalamu maa fil arxaam li nekk ci biiru nit ba ko ci yàlla dugalee rek la ko keneen commencé xam ba ba mu ëmbee malaaka yàlla yebal na malaaka mu xam ko suma yursal ilayhi ma fa yanfuxu fihi ruux wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi risqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun am said yooyu yëpp malaaka mi xam na ko kañ lay faatu kañ rës jox ko wërsëg ak yu ci aju yëpp docteur bi nga xamante ni mooy suivre femme bi tamit xam na kañ lay am doom waa boog xam na ban weer lay am doom kon kumpa gi wàññeeku na kon loolu xayb nisbi la aw ma tadri nafsun ma sa taksibu gada loolu malaaka mi xam na ko bi kat bi risqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun am said foofu la ko malaaka mi xame ba yàlla ba mu amee ñeenti weer yàlla yabal malaaka mi ca waaji ca biiru ndeyam ni ko demal nga bindal wërsëgam ak la ca topp ak yépp ci la xam kañ lay faatu wa ma tadri nafsun bi ay ardin tamut nag kañ la nit di faatu kooku moom suñu borom ma ko xam ala kulli xaal kumpa yooyu yëpp ñu ci yi ñuy jamee imaamul busayri yëpp kumpa la yoo xamante ni nekkul ala itlaqihi yàlla ba mu wàccee yenn daraja yi rek ci la ko nit xamee wala malak xam ko muy malaaka wala yonantu xam ko xam na nag daraja bu mu koy bàyyi kenn du ko xam lu mel ni ki kañ la bisu penc di taxaw kon ñiy diingat wala ñiy jam imaamul busayri xëy na am na loo xamante ni ñàkk yër rek lay doon wala ñàkk a def tadabbur wa min ulumika ilmu lawxi wal qalim wal qalami mu ni ko kon bokk na ci sa ulum yi sa xam-xam yi ilmu lawxi xam-xamu àlluwa wal qalami ak xam-xamu xalima mu ni yaa nafsu yow bakkan laa taqunuti bul naagu mukk min zallatin ci rëcc rëcc boo xamante ni azumat màgg na inal kabaira naka bàkkaar yu mag yi kallama mi comme bàkkaar yu ndaw yi fil xufraani ci ak jéggal bul bul def bàkkaar ba naagu ni dootuma jéggul yàlla ndax yàlla duma jéggal ndax bàkkaar yu mag yi mook bàkkaar yu ndaw yi ñoo tolloo ci géejug jéggal yàlla bu lay jéggal day jéggal nit ki ci lim ni ay bàkkaaram toll yàlla buy baal nit da koy baal ci ni ay crime ay crimam toll kon ki def bàkkaar bu mag bu mu naagu na jégglu mu ni laalla rahmata rabbi xiina yaqsimuha tati ala xasabi l isyaani fi l qisami mu ni laalla xëy na mbesle mu ni xëy na mën naa am daal rahmatallahi yërmane rahmatullahi yërmane suñu borom rahmatu rabbi yërmaane suñu borom xiina yaqsimuha jamono ba mu koy séddale tati day ñëw ala xasabil isyaani kemtalaay na mooy ya toll fil xisami ci ak séddale ku nekk day dalay si dalay dalay dalay baal lu toll ne la nga def kon lu bàkkaar rëy rëy jéggulul rek bàkkaar rum rëy rëy nit ki bu mu tax mu ñàkk confiance ci ni suñu borom daf koy jéggal ndax yàlla la nga koy ñaani ma nga fa te mën na la koo jox du ko wàññi dara bokkul ak nit nit boo koy ñaan sóoral ñaar ay sóoral ni mën nga ko faa fekk te du la ko mën a jox sóoral ni mën ngaa dem doo ko fa fekk waaye loolu lépp nekkul ci yàlla yàlla loo koy ñaan ma nga fa te mën na la koo jox kon ku gàddu sa soxla jëm ci suñu borom sa xel dafa war a dal mu ni yaa rabbi waj'al rajaa'i ghayra mun'akisin ladayka waj'al xisaabi gayra munxarimin mu ni yaa rabbi yow sama borom waj'al na nga def rajaa yi sama sama yaakaar gayra munakisin mu bañ a dëpp ladayka fa yow waj'al nga def tamit xisaabi sama sama bregle gayra munxarimin du muy aji dog moom daal nee na suñu borom sama sama sama sama yaakaar wala xëyra mun xarimin muy aji wàññeeku bokk dani suñu borom yaa rabbi yaa rabbi la woon ñu xasaf yaa bi mu ne na nga def sama yaakaar ji xayra munaakisin muy loo xamante ni du du du yaakaar ju du tas ci yow mukk nga def tamit sama regle loo xamante ni du wàññeeku ana inda danni abdi bi in xayran fa xayr wa in charran fa charr nee na man daal maa ngi ca sama jaam bi na ma njorte rek su njorteen dama koy defal lu baax lu baax la su njorteen lu bon laa koy jox lu bon la kon kuy njortu ci yàlla na nga njortu njortu lu rafet mu ni waltuf bi abdika fi daarayni inna lahu sabran mata tadcuhu l ahwaalu yanhasimi mu ni ko waltuf na nga ñeewante bi abdika ci sa jaam bi di wax ak yow muy imam Busayri fit daaray ni ci ñaari kër yi muy àdduna ak alaaxira inna lahu ñeel na ko sabran ak muñ waaye matta taduhu saa bu ko woowee al ahwaalu tartar yi yenn hazimi mu daal di daw moom daal ak muñam soriwut danga ko yërëm rek saa bu mbir mi taree rek fit wa dem na mu ni wazan li suxbi salaatin min min ka daimatin ala nabiyi bi mun halin wa mun sajimin mu ni wazan na nga na nga digal li sox bi salaatin ci ay niiri xewal min ka yu tukkee ci yow daa imatin di way sax mu di way sax ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mun halin ci ak dotteeku wa mun sajimin ak yol dafay nuróole niir maanaam bokk wala bokk dafa idaafatul mushabbahi bihi lil mushabbah ndax niir kii julli gu mel ni ay niir la wax ni suñu borom yal na ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam commencé na ñaan julli ci yonent bi rek te loolu yërmane la mu julli yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yërmane la moo tax mu ni julli gu mel ni ay niir yoo xamante ni dañuy dotti bi mun halin wa mun sajimin mooy bi matarin mun halin yoo xamante ni day mel ni taw buy dotti mooy saa boo yaakaarin ma ngay siwir rek mu ko mu tàmbaliwaat wa mun sajimin ay wa matarin mun sajimin ak taw boo xamante ni tamit day yol rek di yaatu loolu rek la bëgg a nuróole mu ni yàlla na ko def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ni kañ mu ni maaran naxat adabatil baani riixu saba wa atrabal isa xaadil iisi bin naxami maaran naxat feeg ma ngi jaayu azabatil baani garabu baan azabat mooy ay branche branche garab albaan be façon garab la mu ni fekk mu ngi jaayu caru gàncaxu baan fekk mi ngi koy jaay di ko joow lu koy joow riixu saba mooy faa'ilu ma rannaxat fekk mi ngi koy joow wa atraba te fekk mu ngi siigiriloo ala isa gëléem yi xaadil iisi aji màng ji gëléem yi mooy ki leen di womat bin naxami ci ay woy giléem buñ koy wommat dañ koy woyal pour mu sawar di waaxu saa boo demee wommatkatu giléem yi fu ñuy wommate seen giléem yi dañuy woy ak a walis mu ni feek ñi ngi def mu ni kon julli googu ma lay wax muy dotti julli gu mel ni ay niir di sotti rek na yàlla na nga ko sotti ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feek garabu gàncaxu baan mu ngi joowu loolu mooy ba ilaa yow mi diin doomut yemukaay ndax gàncaxu baan moom li feek moo ngi sax rek branche ya di joow kon julli gudul dakk gis nga ñëpp bu ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli gudul dakk la ni laaj mooy xewal goo xamante ni du dakk yërmane goo xam ne boog du dakk ndax julli bu dee ci suñu borom la jógee jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak xewal la suma rida yi yëpp ay bayit la yoo xam ni ñenn nat ñi ñoo ko ciy dolli ci seeni nusxa maanaam seeni téere am na yu mu téere yu mu nekk ak yu mu nekkul suma rida an abi bakrin wa an omarin wa an aliyin wa an uthmana dhil karami suma rida topp nga gërëm an abi bakrin ci sayidna abu bakr wa an omar ak sayidna omar radiallahu anhu wa an aliyin ak sayidna ali muy xulafa al arbaa wa an usman ak usman ibnul affan zil karami kay boroomuk tab muy usman ibnul affan boroomuk tab la ndax ku amoon xaalis la te xaalisam yépp da ko yàlla daf koo xiiran rek mu financé ko ci lislaam moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam ni woon ma darra usmanu baada al yowm usman ba mu financé jaysul usra ca gazwatu tabuk la yonent bi ni ma dara Ousmane ma faala baadal yow Ousmane daal lum defati ginnaaw bisub tey bi yàlla jéggal na ko kon yàlla jéggal na ko lépp moo tax Ousmane ñi ko bëgg a jam dañoo xamul ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko garante wal aali wa saxbi summa taabiina fa hum ahlu tuqaa wan naqa wal xilmi wal karami mu ni wal aali ak ay ñooñam alu nabi sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ni dañ koo tudd ci maqaamu duaa yi ñëpp ci lañ dugg jullit ñëpp waaw jullit ñëpp dañ ciy dugg buñ ko tuddee ci maqaamu duaa bu fekkente ne dañ koo tudd ci maqaamu sadaqa muminu hashim lañ ci namm su fekkente dañ koo tudd nag ci bërëb bu fu ñu taggee bu boobaa ahlul aba rek lañ ci nam mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ali ibn abi talib ak fatima ak xasan ak xuseyn kon lu nekk place bu nekk rek day am nun ci namm wa fi maqaamil madxi hum ahlul abaati allazina rijsa anhum adhaba wa tuhiru lama daat tathira tuuba lahum duaahu shahira taaha wa bintu lmustafa sibtaaha wa bacluha saliisu ammi taaha mu ni ahlu tuqaa wal aali ak wa saxbi ak ay saxaabaam kon xam nga aalu ñëpp la ci namm suma taabiina ak way topp leen mooy ñi topp ci ñoom fahum ñoom ñoom daal ñii muy aali ak saxbi yi ak taabiin yi ahlu tuqaa mooy ñooy ñooñ ragal yàlla wan naqa ak ñooy ñooñ set wal xilmi aku lewet wal karami ak tedd nga yaa rabbi yow suñu boroom yow la yaa rabbi yow sama boroom balligh maqasidana balligh na nga jottali maqasidana suñuy suñuy suñuy jubluwaay bil Mustafa ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam waxfir lana yàlla nga ñu yërëm maa la nga xam ne mada wéy na yaa waasi al karame yow aji yaatu ji tedd nga waxfir yàlla na nga jéggal ilahi yow sama borom li kullil muslimina mboolem jullit ñepp bi ma yatluuhu ci la ñu jàng fil masjidil aqsa ci masjidul aqsa ba nekk Jérusalem wa fil xarami ak ci xurumu màkka bi muy masjidul xaram ngi ñaanal mboolem jullit ñépp bi jaahi man baytuhu fi taybatin xaramun wa ismuhu qasamun min acdami alqasami ci barke yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ka nga xamante ni këram ma nga nekk tayba dal waaye ma nga nekk tayba muy madina wa ismuhu turam qasamun ngiñ la min acdamil qasami gën jaa màgg ci ngiñ wa haadihi burdatul muxtaari qad qutimat walhamdulillahi fi bat in wa fi xatamin mu ni wa haadihi lii burdatul madi burdatul muxtaari mooy burdu bañu tànn waxal nañ leen li tax mu tudde ko burdu ca géntam ga xadd ca dëgg xotimat linkaa ñeef na ko mooy tëjeef na ko walhamdu sant lillahi yal na ñeel li walhamdu sant lillahi ñeel na buur yàlla fii bat in ci tàmbaliment bi wa fii xatamin ak ci mottalige abyaatuha ay bayitam xadd atat dikk na sittiina juróom benn fukk mooy soixante ma miatin ci ginnaaw téeméer muy téeméer ak juróom benn fukki bayit muy cent soixante bayit mu ni farrij yal na nga wuññi karbana suñu njàqare biha ci burda bi yaa waasi alkarami yow aji tedd ji yow aji jaatu ji teraanga loolu moo nekkoon téere burdu bi ñu def ko ci fukki fan yi gàmmo gi képp koo xamante ni déglu na ko jariñ na ci yàlla nañu mu mu ñaanal ñu yàlla yokkal ñu suñu tafeel ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ñu tamit ak njub ñaanal ñu yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar di yéen ñaanal tamit yéen ñi nga xamante ni yéen a ko doon topp ak di ko déglu yàlla yokk seen cofeel ci sayyidina muhammad ak li ñu for ci burdu bi liñ ci dégg di ñaan tamit yàlla jéggal ñépp seeni bàkkaar ñu leen di jox dig daje ba beneen burdati di ñaan yàlla yàlla mu bàyyi ñu fi ñu fekke burdu yu bari yu ànd ak wér ak wérle kenn bañ a manqué ci barke sallallahu alayhi wa sallam def na yeneen kii nag ay mudarriya ak yeneen qasida waaye burdu bi moom fukki bunt yi moo nekk noonu lépp lu ci jub ñu sante ko yàlla xam ni ndimbalu yàlla rek la lépp lu ci dëng ñu di ci jéggulu tey muslu ci saytaane ndax ki ko doon wax àlluwam guddul te ab jaam rek la bu ñàkk solo te liggéeyu nit manqué manqué mënu caa ñàkk liggéeyu nit lépp lu nit def manqué manqué mënu caa ñàkk lépp lu ci waay gis mu dëng jubbanti ko lépp lu ci waay gis mu jub sante ko yàlla wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu